gis ne relève bi euh, assuré am nga benn doom quand même buy théâtre muy Soda gis nañ ko ci. waaw ça <laughs> ko dugal ci fii la dëkk ñu dëkk fii yow gu dégg ba bu ñuy tourné fii mu ngi fi toog moo dafa am ki fi duggoon fii rakam la ñoom ñaar laa am. ki mu ngi def leneen moom mooy moom solo xam nga jigéen mooy gën a tax papaam di sob et puis danaan ñëw ñuy ñëw di tourner mu leen di assister ak yooyu

ben doom bu jigéen mais maamam bi jur yaayam formé na fi ay journalistes ak ay comédiens yu bëree bëri bëri ci jamono ci école nationale des arts muy Abdoulaye Farba sar école des arts professeur d'art dramatique professeur de diction joué na ci le mandat donc kooku mo jur yaayu Soda donc déjà fofu amna fofu de qui tenir Soda bi ma ko animatrice culturelle won woon Marème Camara sama jarbat la mu ngi école des arts ba génn nek animatrice def ko def yooyu yëpp ba nek centre culturel Kaolack ba nek animatrice culturel donc turandoom la ba paré man ma ñew déjà ci ñetti génération yi amna ci fu muy téye mais azaram la mom mais du métier aussi parce que mu ngi doon liggéey leneen def ni gi parce que xam nga boy ki ni rek mais sama copain bi nekkon fi doon duggoon ci café avec euh, Samba Diaw moom moo daan gis ne mais soo demee te ma ko dugal ci kii di dañu daan def suñuy kii di ko si dugal moom mu ne mais dama koy dugal ci café avec yooyu mais man influent wu ma ci pour su ma ci def ma ci dara Samba Diop moo gis ne am na ay disposition mu boole ko yëm yërim ñu discuter dafa mu def muy def affaire am. mais mu ngi si seeyam yore njabootam mu ngi këram fii yooyu dafa doon boo boo amul métier am na yeneen mu ngi gérer foyer ak yooyu. peut-être du ma ne bàyyi na ko mais defu ko métier à 100 pour cent comme man ni ma ko man defuma ko métier à 100 pour cent moom it loolu dañu teel a def seen bopp mais bu ñu amee ay ay événement ponctuel nga xam ne ñu war a def muy cinéma muy leneen lu loo xam ne jar na ko moo jëkkëram bu ñu xoolee xam ne lii mën na ci dugg mu def ko du ko dara tegul mais man awma ci benn influence ba dañuy man ni may wax ñeneen ñi sax moom du ma ko ci wax moom dañuy clashante waaye mu naan moom moom mooy star bi léegi man dootuma dara ma ne koy tant que yaa ngi naan doomu Tapha Gueye rek doo star bés bu ma rombee ñu ne ma kii mooy Papa Soda ma xam ne yow yaay star